Vos applaudissements Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vos applaudissements pour Didier s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Wow. Merci Merci Il Merci Merci tatoué Merci Merci Euh, ndax lii dafa rafet comme li may wax rek chaque jour dama naan dooley jën ndox la comme niñ ko waxee rek dooley artiste public bi la mais dooley promoteur tamit bi la kon raxu nga xewle sa anniversaire comme li nga wax rek ñëpp dinañ teew tey lii dafa rafet dama ni tey ku xool li xam ni Paris ñëpp génn nañu te mu doon anniversaire boo xamante ni mën naa ne defuñu sax pub bi kon buñ defoon pub bi dina gën demee neneen comme li nga wax rek doo jël sa téléphone woo kenn ndax yow ku si bi sekk ñëwal sa bopp man nag comme koy waxee chaque jour dama lay delloo waat njukkal di la wax yàlla nga ko feete ay ati ati at yàlla nay dem bañ koy yóbbu Zénith ak Bercy tàccuwaat leen loolu ndax mérito nga ko nit nag boo nekkee ci dëkk di def lu baax di def lu rafet mérite nga lu ne comme li ma wax rek bul diit bul ragal xuusal jàll da ngay dem waaw bu ñu noonu nga am nga roof yàqu jëm te ñeneen ñi géewul bi dafa